ginnaawoo timis tuuti bi ñu yootu gée ci la ndog bi am ndax courant dafa coupé woon ci suba si mu guddee ñëw lool bi mu ñëwee nag daanaka mook tàkk-tàkk bi rek dañoo ànd e, wax dëgg yàlla amut leen na loo xam ne lii des na fi lii ngeen gis fii ak ni ngeen ko gisee ni yëpp noonu rek la mel nekkoon benni néeg waaye comme ni ñu ko waxee rek dara desu fi néeg yëpp dañoo tàkk ba jeex itam wax dëgg yàlla amut lenn loo xam ne lii génn na fi xanaa bakken yi waaye li demee ni ki lii nekk ci biir néeg amut lenn loo xam ne lii génn na ci du lal du matla du armoire du télé du ventilo du dara ku ci nekk daal yaakaar naa li nga yendoo rek mooy li nga xam ne moo la tere waat ne am naa lu may sol ah ñun nag moom dañuy sàkku ndimbal ñu sàkk ku ñu jàppale autorité yëpp nag bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen bàyyiwuñu ci kenn ndax am nañu njàqare lool ndax boobu ak léegi mu ngi am ay fan daanaka fi ñuy fanaan sax mu ngi ñuy të uh, boo fanaanee fii tey bu subaa nga fanaan fële. wax deug yalla bu nu gison ku ñuy jàppale be nu mëna genn ci loolu yit dinañ ko sant way dinañu sant yàlla itam eh, loolu moy li nga xamee ne lii eh, moy li fi xew. sant yalla bakken yeb mom gennina na eh li ñuy wax matériel moy li genn waye doom adamay kay wax deug yalla yalla dogal na ñepp mucc nañu. dekkandor yi mom def nañu seen gar bu baaxa baax. surtout imam lii bii ñu jàkkaarloo moo fi jëkk ñëw keroog ci ni nga xame ne mën nañu ne ay kilifa lañu bi mu ñëwee gisal na boppam kenn waxu ko ndax tàkk-tàkk bi am na lu ko ci fekk waaye booboog léegi wax dëgg yàlla keneen ku dul moom gisaguñu ko dëkkandoo yi nag moom dañ leen di sant rek bu fekkul woon loo xam ne yàlla tudd na ne dafa war a jeex kon du lakk ndax jëm nañu seen lay kàttan def nañu seen lay kàttan waaye yàlla bu ne day jeex rek day jeex booboog léegi nak wax dëgg yàlla ñoo ngi tàllal loxo ñoo ngi woote fu ne waaye gisaguñu dara. pap basiru Diop ñëw na fi mu xamal nu ne maire moo ko ne mu ñëw mu seet ah bi mu ñëwee nag moom toog na tuuti delluwaat waaye booboog léegi wax dëgg yàlla gisaatuñu ko déggaatuñu ko wax dëgg yàlla. soxla nañu jàppale bu baax a baax ci autorité yi yëpp comme ni ma ko waxee daal. ñoom Talla Sylla ak ñoom Abdou Mbaw ak euh, ñëpp daal bàyyiwuñu kenn ñoo ngi tàllal ñëpp loxo daal ku ñu jàppale ku nekk rek dinañu jël.